salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen fii di dalal euh, naandaan bu màgg bi ñu ngi xam ko ci màgg daan muy doomu Thiès màgg nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay soxna Khady Sène di nuyu waa Thiès 24 yëpp te moo journal bu nekk ci liiñ bi di def liggéey bu rafet kontaan ci émission bi di nuyu waa Thiès yëpp waa senegal di nuyu Afrique di nuyu àdduna bépp. ndax partout dans le monde ci nouvelle technologie mën nga cee jaare xam lépp kon maa ngi nuyu waa diaspora bi ok màgg ci loolu lan nga ñuy nuyoo waaw ndeysaan tey la 14 février muy Saint-Valentin nee woon naa sax duma wax dara ci mbëggeel mais tey bis bu symbolique la kon ma nuyu la rek tuuti mhm. ne la jàkk-jàkkaarloog yow ngay nelaw sa kaw lal yow ne la jàkk-jàkkaarloog yow ngay nelaw sa kaw lal yow mbëggeel ne ma caraax ma lay xool ngay nelaw saay gën ni ci yow sooy jaabante rooti mbëggeel fees sama xol may muuñ sooy nampal doom sama wayal kuy riis ma mbégte xalaatu kumba duudu sëy na bu duudu ndeyu naa nuyoo xaritoo xaritu mbëggeel sant si sow konaate soppey sama sëy baay sama xalaatu àdduna ku sëy maa ngi sëyloo ku sëyul maa ngi sëyloo jabar sama soo feebaree ma tàggoog sago soo feebaree ma tàggoog sago jabar sama soo meree ma jànnaxee cey ma nag bëggeel mi ma saatit sëy ba xam naa yëg naa bëggeel dama saatit soo ma mayee ndoxum naan ma koy ñiiram ndax xol bu neex cey ndoweel may ñiiram saa yu ñu bokkee ndabul añ baa ak xale yi waaw waaw xadi waa kay màgg <laughs> jërëjëf xam naa ne loolu moom daw na yaram neex na ci Saint-Valentin bi <laughs> suñ jógee ci loolu màgg dama bëggoon nga expliquer ñu nan nga duggee ci aar bi ak yan jaar-jaar nga am ba toll fii waaw soxna Xadi ñun mën nañ ni ca ndaw lañ tàmbalee aar ci école yàgg na aar dañoo judd rek bëgg way ndax ñun maam Momar Khoudia Gueye suñu maam taalibe maam xaalima jaxate kala da daan woyal maam Mor Saasum jaxate daan fett daan ko tëgg ci ay weewam maam Mor Saasum di maam sama maam yàgg naa way man nag aar bi may lu ndaw rek laa ci dugg bi ma gënee tuuti samay mag fu ñu ma woo dañ may wayloo ñëpp xamoon nañ ni ci dana way man tamit ma dem jàngi jàng naa jàng mi bëri naag néew na mais li ma ci doon gëstu mooy fexe toog ba mën a bind am na lu ma fa am maanaam bëgg daal aar moom dañoo judd rek na ci way ne suñu deret ñuy way di bëggale soxna xal yi aar daal mi ngi ci te boobu ba ci lañ nekk ñun defuñu leneen lu dul woy ak bind ci kaw loolu ñu ne bi dafa bëri ay jafe-jafe waaw ndax mbir mi Moussa Ngom daan na wax je suis un artiste mais pas commerçant ñun aar bi dañ koo def juste rek ngir bëgg ko jafe-jafe nag lépp am na jafe-jafe loo gis jafe-jafe ma ngi ca biir waaye nga defe ko ak ngor ak jom ak jox ñëpp seen cër toog xaar sa wërsëg képp ku la xam te xam sa valeur bu la soxlaa dina la woo te ku la liggéeyloo moo la fay ko loolu ngay dunde kon ñuy tàllal Cees yëpp loxo di leen wax ne tem yëpp pare na màgg dina wax ci lu ne di gërëm tamit université de Thiès bërki démb rek UFR santé ñu fa génne mu rafet ñu invité ma ci bés bi ma def fa lu rafet waaw loolu lépp dafa am solo te loolu moo ñuy dundal waaw kay jërëjëf Maguette yow dañu xool ne style bi nga adopté yow dafa xaw a particulier est-ce que mën nga ñu expliquer yow ban facette nga adopté nii sooy loolu. waaw ak ñun ñu ngi acapella way ñun fu ñu way fekk ñu woy ñu doon nag ay bindkat ba pare door a doon waykat kon ñun taalifkat lañu kon li ñuy def nii ci xeetu taalif la gën a jege xeetu salaam xeetu acapella maanaam benn bennal mbaboor maanaam ñun loolu la ñuy li ñuy def bëri na mais voix rek instrument la instrument beneen bu ñëw rek day mottali dem màgg man foo ma dugal ma dem muy moderne ak traditionnel mais lu ëpp damay woye a cappella ndax dama ciy gën a yëg suñu bopp bind daal la ñuy def bu ñu bindee nag door a kon taalif la def dañuy bind lu baree baree bari waaw macha allah màgg ñu remarqué ne màgg xalimaam dafa riche ñu bëggoon xam lan moo lay inspire waaw man dinaa bind waaye dinaa gise nit ku mën bind bind ma jël li nga bind way ndax Moussa Ka bind na Cheikh sàmba Diarra Mbaye bind Kayra bind ñooñu ci olof lañ daan bind am na ñu mujj bind ci jamono jii ku mel ni Xalima Sarr bindkat la ku mel ni Moussou Diabaxate bindkat la ku mel ni Alioune Badara Bey bind na am na hommage bu mu def ci Baye Gana Kebe ma jëlaat ko way ko en français Mbaye Gana Kebe yàlla na yàlla yokk leeram maanaam ah, bëri bind bi daal mi ngi fi mais man dinaa bind mais dinaa xool lu nit bind ku mel ni Mamadou Konaté li ma doon woy léegi Mamadou Konaté moo ko bind mi ngi fii ci corkaat bindkat bu riche la te man pour ma woy sa bind il faut li nga bind rafet nga mën a bind dëgg sinon sama bind mépp ci service mu waaye la te xeex accident viol fait aux jeunes filles du ne ne daal ñu ngi ciy bind thèmes yu bëri ndax boo xoolee li ma li ma bind man sama œuvre mat na trois cent vingt sept way te way wu ci ne jógul ngir nit mais ci thématique rek la ñuy la ñuy dox ci lañuy wax mm-hmm. soxna Xadi ci kaw loolu màgg est-ce que mën nañ nga ñoo wax lan mooy say projet waaw projet yi moom ñu ngi ci kawam ndax dama bëgg ci mois de mars bi mm-hmm. dinañ ci ñi ciy liggéey ñi ngi ciy liggéey ku mel ni lay Mbaye mu suñu baay Mikaayel Mbay ku mel ne Ablaay Ndaw mu suñu baay baay Duud Ndaw ñoom ñi ñuy jàppale ku mel ni ku ci mel ni Seydou Ndiaye te mu nekk waaw Seydou du ma tudd sax entreprise Seydou Ndiaye mu doon suñu grand baax am na suñu projet bi ñu jublu mooy mois de mars bi du wax date nag mais màgg daan bëgg na ci organiser anniversaire bu mag Thiès yëpp ñëw wuy suñu si suñu bis boobu dinañ ko def ci benn place ci dëkk bi bu àggee dinañ ko wax date bi mais ci mois mars la loolu na ko Thiès yëpp waajal muy suñu bés ñi ñu daan fekk ñëpp mën ñoo fekk si keroog incha allah. waaw ci kaw loolu màgg est-ce que am na projet album wala yooyu. waaw projet album bi lépp pare na mais dama ne producteurs yi ak label yi ñi nga xam ni ñi ñu ngi ci métier mi. label bu mën a jóg ñun tàllal na la say loxo producteur bu bëgg a am xaalis ndax kasatu màgg daan dañ koy jënd du lamb ñun kenn duñu piraat ndax àddina moo ñu yéene kon producteur bu bëgg a am xaalis rek produiral màgg daan ñu jaay lu bare bare bare jaay vente bu ñu gëj a jaay te loolu seen métier la li ma amakus néew dama ko yóbbu kër ga moo ko buggee dugal ci production day metti te man du producteur bon producteurs yu jóg te Thiès am na ay producteurs dugg leen ci business bi day dox. Mhm. ku produire malgré doo ko réccu. soxna loolu la <laughs> ci. ba tey est-ce que nit ñi ñu ngi lay jàppale ci ni mu waree daal. waaw nit ñi ñu ngi ñuy jàppale ndax wax ju rafet sax jàppale la. mais nag man màgg daan Thiès yëpp seede nañ ma. maanaam li ñuy jàppale moo ñu xewle. maa li tax li ma mujj a dëgg dëgg. maa ngi gërëm Makhtar Mour Seck directeur université de Thiès. di gërëm madame Cissé Aïssatou Seck mu bàyyi Momar ñooñu dañu xewle EFR santé am ñu war a génn ñu ne ma kaa yaa war a animé lii fay ma cachet bu ma gëj a am noonu ngay dimbalee nit ndax maag damante dem bureau mus muur sec ma dañ musuma dugg sax bureau mais gis na sama talent INSA fu ne forum de l'emploi vraiment noonu lañ mën a jàppalee nit way suñu maire tamit dara dina xew ci dëkk bi mu ni madame Sarr wool maanaam ñi may woo ci lépp muy politiciens yi tamit dinañ xewle woo ma jox ma kaso maa ngi gërëm politiciens yëpp ndax ñoom tamit dañ may jox ay contrat dana gën a bari nag te damaa bëgg nag élection yi di ñëw ku soxla màgg daal woo ko ndax ñun kaso rek dañuy génn mais da ngay gis ku toog fee di tey ma woo màgg ndax màgg péréel màgg farul moom màgg artiste la ku am fu la daal di ko signé màgg daan contrat bu duun màgg ba ñëpp topp la ñu liggéey loolu moom leer ak foo mën a bokk tarixa boo mën a bokk je suis prêt di gërëm sëñ Assec nag borom ndigal di gërëm Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo réy ni sama sëriñ di gërëm sama sang ba sëriñ Xaadim Lo Gaydel sëriñ Xuja Kumba Gaydel sama xarit di gërëm sëriñ Omar Njégéen Maam Aas di sant bu baax sëriñ Asan Kan Nasru di bëgg daal sama sang su baax soosu waaw moo xam waa Nasru diin xam nga ñooñ dañ baax ay kilifa diine lañ naas na nii jërëjëf màgg ci loolu nag ci la ñuy duggee xam naa ci suñu dernière question muy sa relation ak Idrissa Seck ndeysaan ndax fawee nañ ci weeru weewu béy ne nijaayam nga te ñu ngi doon dégg ci élection yuy passé législative yu mujj yi xët-xët dafa amoon seen diggante ci benn single boo génnaloon ay kiiwam est-ce que mën nga ñoo dellu si ci ci loolu waaw Idrissa sama jarbaat la Absa Gueye ab Absa Gueye Nguunun maamam Faat Diop Assane yaayam sama it sama papa Ablaye Xuma Gueye ni la kon idi sama jarbaat la mais man compre li wax man man mosuma koo yëg mosuma koo dégg ah, màgg ndax man moom xam naa yow génneel naa kay élection législative yi wayal naa Abdou Mbow. waaw wayal naa Maodo Malick Mbaye. Mhm. wayal waaye amul ci bum la ci woo ne la ah kii bii kat bi nga ko woyee non sérieusement mosuñu ma ci woo mosuñu ma def dara. Ah. après ñu ma liggéeyloo rek laa dem. Mhm. mais nag Maodo Malick moom jotul rek campagne bosam. ah d'accord waaw ah, Maodo Malick Mbaye moom. campagne wul bosam mais Abdou Mbow campagne na bosam. Mhm. Thierno tamit doon na teg bosam. mais mujj gi dañu nañ ko teggi ndax daal bëggul ñuy way Thierno. yeneen leader yi wayu ñu leen moom borom baax la ñu <laughs> ngi noonu daal mais daal ku ñu liggéey indi sax bu ñu fayoon ñu liggéeyal ko ñu koy gërëm di ko sant nag ndax moom a njëkk a may xaalis bu bari du ma ko wax sax mais idi vraiment primature may na ma fa xaalis bu ma politicien nag mës ta may te ba tey kenn tabut idi kon kooku moom sama lépp la daal maa ngi koy gërëm di ko sant bi lépp di gërëm ñëpp mais kooku du ñu jote dara kooku xam na ne daanaan laa damay liggéey ndeysaan Thiès 24 ndeysaan point com troisième millénaire ay lañu ne ku sàkkool xam-xam perte nga mbay sàmb borom bagaaj sàmb sëriñ bagaaj ee eh, wàññi woo ah, yaa noobal baa ngi tey ma guddee te Ababacar jaral nga ma guddee tey ma guddee réer jëm nu mbelaan waaw Thiès a neex Cees a neex Cees kaay dëkk bi ci ñetti yi marché bu mag marché mu sante marché Grand Cees mbambara mu sante ersan jàmm gën ngeen teg caali fayu grand standing laa jëm mareem sekk neex a seete waaw waaw nday mareem jigéenu iri sa baa neex a seeti bàyyi papa Abdoulaye neex a seeti nday mareem bàjjanub Abdoulaye Seck mi ñu duppee maamam Idrissa kontaan naa Idrissa jooyatuma ba ma dajeeg Sidi ba tey laa xam ne gis naa gor Sidi Kunta Mokhtar doomi yaay Oumy Gueye Aloyse Nam Diouf manufacture sénégalaise des arts décoratifs tey ma way monsieur le gouverneur Amadou hee jàmbaar jalaay wayal Alioune Badara Samb kontaan naa tey ma guddee te way leen ja Abdou nga la man bëgg naa la Siré Dia xanaa kontaan nga hey Babacar Pascal sutum may sawaali jonn Babacar Pascal sutum may sawaali jonn bàyyi maam Jaara jonn bàyyi maam Faatu jonn bàyyi Muhammad jonn la duppee rasulallahi doomi abdallah jaaga mi nata babakare way naa yankooba naam jatara hey Idrissa kontaan naa way leen monsieur le maire taala si la kontaan naa si la moxtaar si la boo tëddee nelawal sa gannaaw bandang Cees kaay géppale bégge taala si la kontaan naa waaw waaw ana Mariam Diop sila la la dame de Mariam Diop dooni suma doon góor Mariam Diop si la laay way Faatu Njaay candeela hey candeela mbooj professeur anglais ba way naa ba wayaale yoro Sidibe mbokkum dayam ñaañaag lii kaag mintu Sidibe yoro Sidibe sama gërgëm man nga wéeru waay hey Makhtar Mour Seck madame Seck kontaan naa hay madame Cissé satu Seck li yàlla dogal neex na nu waaw waaw waaw waaw li yàlla dogal neex na nu akasa xadi taalibe gaydel sere ko jokkumba gaydel faalo ak naa la promenade bi waa kay mbokk yi ñu ngi woon fii ci promenade de Thiès waa àndoon ak suñu ndaanaan bi di màgg daan di doomu Thiès le prince de la poésie waa kay jërëjëf màgg